asalaamaaleykum wa rahmatullahi alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag euh, tey lu tiis moo am fii ci hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh euh, li fi xew mooy euh, dañ ma woo léegi wax ma ni ma dafa am lakk-lakk bu fi am ma ñëw fii ci hôpital bi waaye nag lakk-lakk bu metti ma fi am am na ay bébé yu seen bakkan waaye pour le moment wax parce que autorités yi waxaguñu waaye bu soobee yàlla incha allahu rabbi lu subaa rek lu ci ni daal fii ci hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh bu Tivaouane am na lakk-lakk bu bu fi am boo xamante ni fële amee ci pédiatrie ca crèche ba lakk-lakk bu metti daal am ay bébé yoo xamante jot nañ faa ñàkk seen bakkan yal na leen yàlla yërëm waaye nag loolu moom xew na fii ci hôpital maam Abdoul Aziz Dabakh waaye mbokk daal information yi nga xamante ni moom la dajale euh, dinañ leen ko wax allah seen nañ fi le préfet du département de Tivaouane seen nañ fi aussi le commandant brigade bu bu bu bu bu gendarmerie bu Tivaouane seet nañ fi aussi ñi nga xamante ni ñooy agent policier yu Tivaouane seet nañ fi adjudant seet nañ fi ak agent policier yu bari seet nañ fi aussi sapeur pompier ñoom ñëpp ñëw nañ fi pour def li nga xamante ni mooy seen liggéey waaye bu soobee yàlla incha allahu rabbi bu subaa daal dinañ leen gën a wax li nga xamante ni moo ci nekk waaye daal lakk-lakk boobu moom am na fii ci hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh bu Tivaouane mbokk yi mi ngi noonu alxaaji mi ngi jëp ak Mame Ndokh TV information boobu lañ leen indil ngeen xaar ñu demee incha allahu rabbi dinañ leen wax li nga xamante ni mooy daram bi am fii ak euh, ñaata bébé ñoo ci ñàkk seen bakkan di ñaan yàlla loolu yàlla bu mu fi amati ci barki yonent waaye mbokk daal loolu information bi nga xamante ni moom lañ leen doon wax si ci Tivaouane mbokk yi ngi noonu gis nañ fi le préfet du département de Tivaouane ko jigéen ñu bari ñu ngi jaaxle kenn ko ci ne di xëy na a ngi ci mbokk yi mu ngi noonu jigéen ñëpp jaaxle nañ wàcce nañ leen waaye sapeur ñëw na fi nag fay li nga xamante ni mooy lakk gi fii ci hôpital Maam Abdoul bu Tivaouane mbokk yi ngi noonu alxaaji Mbégi Jóob ak maam Ndox TV loolu la ñu incha allahu rabbi bu subaa dinañ leen indil li nga xamante ni mooy information yi gën a wóor fii ci hôpital maam Abdoul Aziz Dabakh alxaaji Mbir Diop ak maam Ndox TV loolu la indi indiloon fii ngeen xaar nu rek suba incha allahu rabbi ngeen jàpp maam Ndox TV dinañ leen wan information yi nga xamante ni moo ci tëddee ci bar ci mu ngi noonu daal alxaaji Mbir Diop ak maam Ndox TV jërë ngeen